asalaamaaleykum chers internautes de Lou'Bess TV ñu sommes à Fimela plus précisément à Yungar donc ñëwoon ci journée culturelle yi nga xamante ni Famara Bass ak ses collaborateurs ñoom ñoo ko organisé mu nekk dans le cadre des activités culturelles séeréer alors ñu am occasion nag fii ñu nekk dajale fi ay femmes yu bëri yoo xamante ni dañuy jóge ci îles yeeg ak fépp foo xamante ni mooy les village environnants dañuy dugg ak ñoom def ak ñoom benn waxtaan bu am solo laa ñuy dugg ci waxtaan bi nag dañ leen di bàyyi ñu nuyoo donc dañuy jox ki nga xamante ni mooy Fatou saar jóge ba euh, Thialane mu nuyoo ko ñi xamante ne ñoom ñooy waa Lou'Bess TV Fatou Thialane. asalaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di sant yàlla ci teewaay bi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla barke lépp luñ fi wax rek yàlla na ci yàlla def barke. ci daraja Muhammad sallallahu alayhi man may Fatou Sarr Thiala. alors Fatou damay damay des ak yow ba tey balaa may ñëw ak sa yeneen naataango yi alors boo ñu doon wax tey li la li la indi yungaar ba pare balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw yungaar day am fi confiance rek am fi yaakaar bu baax am si gis-gis bu ma doy am am si dégg-dégg bu ma doy doy lu ti wax dëgg yàlla muy bërëb boo xam ne bërëb bu yaatu la. bu bari nit te jàmm rek lañ fi indi te bu ñuy ñibbi jàmm la ñuy yóbbu ak suñu yaakaar yaakaar boo fi indi rek yàlla faj ko yu daal tabaar fakkal la masalda moo tax at bu ne ñu daje fi par semaine bu ne ñu daje fi gis fi rek lu ñu neex rek ak loo xam ne def ñuy jox yokkute ndax am na baat yoo xam ne boo ko fi déggee boo ko yób boo demee ak ñoom mu jëriñ la kon loolu moo ñu indi yu ngar. alors nga jóge ba Thialane est-ce que mën nga ñu wax Thialane moom mooy fan boo ko doon boo définir wala position géographique am fan la nekk exactement. Thialane mu ngi te département Foundiougne département Fatick ah, région fu département Foundiougne arrondissement Niodior commune baasul foofu la Thialane ni alors ñu gis ni tey maanaam ni village yu bëri tey dañ leen di xaw a fàtte boo doon ñëw si jafe-jafe yi Thialane lan lay doon. xanaa man sax bu may wan ci jafe-jafe sax xëy na bu ma wax Thialane rek. ndax ñi fi toog ñëpp benn lañu kon bu ma yëkkatee jafe-jafe rek ñëpp laa koy wax kenn ku ne dina wax sa jafe-jafe waaye benn kàddu bii rek la wax ndax ñun ñëpp am jafe-jafe xam nga Île de Saloum dafa sori Île de Saloum sori na fi mu ne te dafa làkku euh, te dañ ko collectir suñ yaakaar yëpp géej la lépp lu ñu doon sàkku ci àdduna di ko liggéey di ci am dara rek géej la euh, te géej gi mu nekk léegi mu ngi sant Njaay ndax Njaay la sant na Caam waaye suñu yaakaar a ngi gën a wàññeeku ci géej gi ndax liñ ci doon gis gisatuñu ko bu doon fukk la ñuy gis fukk lañ doon gis boo demee ñaar ngay am walla ñett te loolu mun day bu joboot fen fen fen fen fen ñaareel ba yeet pour nga gis ko yoxos pour nga gis ko paañ kon pour nga gis ko jën yi nekkoon sangamaar Eh, waa gaal yi di dem di nappi Sangomar fi bato bi taxaw léegi kan moo fay sànnee ci mbaal kenn kon fan la ñuy mbaalee léegi boo duggee ci boolu bolong yi doo fa gis ko ba boo mbaal ñun ñi am na ñetti atti yàlla kii fii mewuñu kii lan moo tax amuñu ko ba amuñu jën ñaareel ba amuñu financement caalaan nee naa la Île de Saloum dafa làkku Île de Saloum dafa làkku dañ ko korupti te dañu sori fi mu ne lan moo tax ñu soli boo yaw mii boo fi taxawoon tey ne nekk Dakar ne damay yónnee caalaan dara ñaata ñaata euh, dëkk fi tur fi muy fi bi di jaaree wala muy leneen wala muy leneen na dinañu dinañu Fatick nañu Foundiougne na dem Niodior na dem baasul juróomeel bi caalaan door ci jot est-ce dina agsi yëpp wala du agsi jafe-jafe bu métti lañ ne ci dund bu métti lañ ne suñu doom yi. ñu dem de suñu set yi sax laa war a wax lan moo tax ñuy dem janoog sa ndey ak sa baay am loo ko war a jox te amoo ko war a mbaali dem fanaan ci géej gi doo am dara wala li ngay am du la dundal te mbéy mi mbéy mi ñu doon béy laay bu yàgg ba ñu am doole di béy xale yi nangawtuñu nangawtuñu béy pour dem te amuñu matériel sax faf ñu béyee léegi matériel ñooy béy te ñuy amuñu matériel béyukaay boo fay yóbbu matériel pour béyukaay it soxla lay doon xaalis lay doon léegi boo ko amul dee nooy def moo tax xale yi di dem ndeysaan des ci géej gi ñun ñi caalaan am nañ ci ñeenti nit yéen ren ñoo xam ne wallay buñ ñu lay dàkkee dee foog nga ges boo leen fekkee ñu taxaw nga gëstu leen ana ñu tey dee nañ buñ ñu amoon fi ñu jafandiku bu ñu amoon lu ñuy liggéey ci suñ île ñu toog fa liggéey waaye amatuñ ko ndeysaan te ken bëggut kenn gën la xale yi loolu la ñuy rawante léegi diw am na lii ñu naa ko def def doo fa toogee doo ko am foo jëm kon kon doy na waar loolu daal mooy suñu jafe-jafe boo xam ne bu tar la bu tar la boo xam ne daal wax nañ ci yàlla buñ ci amoon saafara mu baax baax a baax a baax a baax di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di baalu ñëpp ak di leen baal ak te di leen wax ne lépp luñ fi wax tey muy njëriñ yàlla ñu ko yàlla defal yàlla ñu ko yàlla defal ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma ak man dafa sàcc yàlla voilà xam naa dinañ ñëwaat si Sangomar bi nga tudd ak jafe-jafe yi nga xamante ni vraiment caalaan am na ko alors dañuy na si ki nga xamante ni mooy Ndeye Binta euh, moom bàyyi ko ba Ndangaan mu présenté wu wax ñu également la même chose ñu partager question bi. ok asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Ndeye Binta Saaj dëkk Ndangaan Samb ñu koy wax Ndangaan village. Euh, nekk département Fatick arrondissement Fimela euh, ak commune bu la waa maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp. alors récemment gis nañ euh, internautes yi ak ñu bëri di def ay post di wax ni euh, Ndangaan vraiment seen seul jafe-jafe moom mooy ndox est-ce que mën nga ñëwaat si yeneen jafe-jafe yi. waaw heureusement Ndangaan jafe-jafem yëpp mooy ndox ndox la premièrement ndox la waaw ndax moom ndox bañ ko ñàkkee yàgg na trop. balaa ñu koy am nawet bi bu nawet commencé robinet yi xelli buy arrêté mu arrêté loolu nekk suñu jafe-jafe lool def nañ ci ay marché be sonn léegi bu paase ngay jënd bidon cent franc nga seet nag jaboot ngay jënd benn bidon cent franc wala jënd trois mille franc par jour wala deux mille par jour waaw bu loolu paasee itam ci côté euh, encadrement xale yi da nga yor sa mu jàng ba am bac léegi pour mu dem cité doo am moyen boobu lañ lay laaj ci affaire inscription fourniture doo ko am day euh, mujj heureusement bàyyi jàng bi ndax day toll foofu di la laaj tey laaj nañ ñu lii tey laaj nañ ñu laa du bokk la nga xamante ne moom la war a lekk dangay mujj heureusement dañuy mujj bàyyi jàng bi lu ñëw ci côté transformatrice moom lañ doon liggéey ndangaan mu développé woon ay années des années mais pendant quatre ans ngi ni mënatuñu liggéey transformatrice bi doxatul burkina yi ñoo doon ñëw di yéeg suñu kaw di wàcc bu la financé xaalis itam moom la waaw ndax li leen neex ak lu leen li ñu bëggee noon ngay jaayee bu ko defee mu mel ni ñoom ngay jaayal loolu ñu dem ba mënatuñ ko liggéey ndax gisatuñ ci suñu bopp ñoom la ñuy liggéeyal te loolu moo nekkoon développement bi tane woon ci ndàngaan loolu bañ ko géjee liggéey ci la ñu gën a am ay jafe-jafe femme yi femme euh, ñu des ba tey si wàllu femme ndàngaan yi parce que gis nañ ni ministère de la femme mi ngi wër fu nekk di joxe ay financement jëm si jigéen ñi est-ce que yegsi na fi nga xamante ni mooy ndàngaan. yegg seegu fa ministre des financement ak yegg seegu fa DER daal moo fa woon te li mu fa li mu financé foofu ci ay nit motul dix personnes waaw motul dix personnes boobu ba tey ñëwaatuñ fa. foofu daal ay partenaire nga fay gis bu ñu ñëwee li leen di financé mooy affaire affaire projet affaire projet boobu day mel ni ñoom dañu ñëw pour yokk la natu ndax bu ñu leen financé da ngeen di bugg di fay boole la ak banque bi li nga doon bañ day mujjee ñëw sa kaw ndax da nga doon bañ banque bi yéeg sa kaw di la sonal léegi projet ñëw jaarale projet boobu ci banque banque bi boo fee ñu ñëw taxawu la nga boole kook say jafe-jafe yi nga amoon kon kooku ñëwul pour jàppale la dafa ñëw pour gën laa sonal waaw projet yooyu daal lañ fa am bu dee côté formation yi tam bu ñu ñëwee pour former la trois jours quatre jours lañ lay former dem seen yoon du am benn suivi waaw ñun daal am nañ problème lool ci jafe-jafe bu dee côté Sangomar bi itam yaa ngi koy dégg buñ ko exploité woon xëj na suñu njabooti gi di daw di dem Espagne ak Maroc yu kenn xamul. xëj na danañ ci am place am lu ñu liggéey mais boo gisee xale yi di dem dañoo gisul lu ñu liggéey gisuñ ko leen jàppale mais buñ ko exploité woon te nga xam ne mu ngi suñu wet Sénégal xëj na am ñu gis ci suñu bopp mais loolu yëpp ñu ngi koy dégg te kenn taxawu ci waaw ñu daal ko ñu jàppale bëgg nañ liggéey mais amuñu moyen waaw. macha allah dinañ dinañ la joxaat kàddu gi alors dañuy dem ba Bassar euh, ak ki nga xamante ni mooy mooy Fatou Dieng Euh, moom également gis nañ ni Bassar ñoom ba tey si wàllu jafe-jafe yaram ak il yi nga xamante ne ñoom la séq est-ce que boo amoon message yooyu lancé lan lay doon. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen laaj seen wér yaram di leen baal di leen di leen baale ñun suñu wér-gu-yaram daa mooy centre de poste. am nañ centre de poste waaye centre de poste bi boo feebaree day lay bindal kayit ñu jël malaat bi ne yóbbu ko fu ñu bi te sookoon te loolu amaan na arrangé wuñu bu ñu amoon ambulance bu ñu yóbbu ndaangaan bi sookoon nga fekk ambulance ci teeru bi ambulance boobu yóbbu la directement hôpital moo ñu arrangé waaye nga dugal ko ci xamoo ndax balaa nga yegg nga am ci problème boo demee ba ba ba itam pour nga uut oto balaa ngay uut oto bu dee fe malade boobu fe sonn na mun naa am beneen problème waaye boo amoon ambulance bu la directement nga fekk ambulance ci teeru bi mu yóbbu la directement hôpital kooku moom baax na ci ñun arrangé waaye dugg gaal wàcc. ut oto arrangé wuñu bu ñu amaan emballage daal fekk ambulance kooku moo ñu arrangé waaw. personnel bi yaa nga fa waaye docteur yi moom marché wuñ léeg-léeg ñu tukki léeg-léeg kenn du nekk ci poste bi te loolu itam baaxul war nañoo am docteur boo xam ne agi boo xam ne boo feebaree rek nga dal di dem fekk ko foofu. waaye léeg-léeg nga yóbbu sa malaat ñu ne docteur nekku fi ngay ut gaal ci guddi googu di a ut essence ne xaaral ñu yóbbu ko boo ko yóbboo ah, mun na ba beneen problème mën na cee ñëw boo demee ba Ndangaan fekkoo fa ambulance amoo oto bu mu gën a dangereux foofu daal mun nañ bugg nañ ku ñu dimbale foofu ci loolu. waaw kay maa ngi leen di nuyu di Eh, jërëjëf Fatou Dieng alors euh, dañuy jàll si ki nga xamante ni mooy Khady Thior moom jóge jógee na alors Khady ñu partagé même question bi rek jafe-jafe yi nga xamante ni na ñu ngi koy dund ci wàllu jigéen ñi wàllu jàng bi ak euh, li nga xamante ni mooy wér-gu-yaram bi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñeen ñëpp seen tur seeni sant suñu jafe-jafe nag mooy ñun dañ di liggéeykat. si lu ñuy yëngatu nii am jafe-jafe gaal am jafe-jafe marché parce que dañuy liggéey jën dañuy uti yoxos dañuy uti paañ mais gaal goo dugg tey dinañ la laaj nga fay 500 francs soog a ut loo yóbbaale mun ngaa dem sax doo for benn tuufa ñëw ëllëg nga def noonu su ko defee ñun ñu nekk si njaay mi di di njaay amuñu marché booy jaay sa biir kër ngay jaay jaay biir kër bu desee lu tuuti doo ko mën a jaayaat ba pare doo ko génne mu yàqute nga jënd ko amul marché loolu metti nañu torop dox nañ ci ba bugg a dee amuñ ci yoon dem bi tam yenn saay nga am programme boo xam ne dañ la woo pour nga ñëw doo am gaal nga tardé programme boobu te boo amoon gaal mun na laa arranger. loolu dafa nekk boo su suñu jafe-jafe ba pare boo amee malaad boo xam ne dafa nekk urgent ambulance bi def lay laaj njëgi essence yenn saa essence jeex si dëkk bi mbaa doo loo ko jëndee malaad boobu nu muy def mun nga koo ñàkk loolu mooy suñu jafe-jafe buñ ci munee am kuñ ci dimbale ah, dina baax torop yéen lan bi feeñ nag pétrole bi feeñ mooy suñu xale yi parce que xale yi jàng nañ comme li kii wax rek amuñu moyen ba xale yi bàyyi njàng dem ci géej gi géej gi tam fi ñu doon nappee pétrole bi tax na ba kenn nappeetul foofu noonu boo fa sànnee mbaal ñu jàpp la léegi yow sa bopp nga ñëw yaakaar sa yaay sa yaay bu amulee nga génn bàyyi ko fi te fi ngay dem gënalu sax sa yaay mais amuñ ci pexe loolu daal bu ngeen ci mënoon a dimbale ba xale yi am lu ñu liggéey si suñu wet nañu gënal mbaa ñu am ñu leen jàppale ba ñu mun a dem te duñu am benn problème waaw loolu dinañu arrangé. alors euh, waa Thialane soo amoon message booy lancé euh, bi ma dese daal mooy dañu nekk ci case de santé rek. fanweeri at ñu ci carte de santé amuñu hôpital euh, muy loo xam ne lu tar la ci ñun wax dëgg yàlla ndax dañu defoon ne boo nekkee boo amee carte de santé boo ci amee juróomi at sa wala fukki at nga dem ci poste de santé waaye ñun mënuñu ko am euh, première matron man la kaas bi am naa ci ñaar fukki at ak juróom-ñett euh, ba léegi génn naa ci nag jox na xale yi. waaye kon bu amoon ku ñu dimbale pon ñu am poste sant dina baax dañuy sonn trop dañuy sonn trop wax dëgg yàlla dañuy soog kon ni ma la ko waxee rek il yi dafa làkku làkku bu baax lañ làkku lii gouvernement bi di joxe si est-ce que dina àgg si ni koy joxee ndax bërëb bi dafa sori am na yoon yu gudd yu muy jaar te yoon bu gudd boobu fu ne mun na faa dara kon lañ mooy àgg si ñun. dama bëgg jigéen Ile Saloum mu ngeen dimaleen ci benn façon boo xam ne mun nañ ci sukkandiku bëgg suñu bopp ci biir il ndax wax dëgg yàlla jigéen yi desuñu gannaaw lépp lu ngóor gi bëgg wala lépp lu gi wax ne def leen ko jigéen yaa ngi ciy taxaw bu baax a baax a baax a baax kon wañ lañ leen a jukkal walla lañ leen a jot teg foo xam ne wax dëgg yàlla ak lu ñu sori sori sori lépp lu ñu am nañ ko teg ci suñu loxo waaye lebal ma ñaar ñetti fan ñeenti fan ma tigal la téem fan lay jëree téeméer bi ma ciy teg te liggéeyu ma fan laa koy jëree mbir mi day gàtt te day metti torop ci ñun sonn nañ wax dëgg yàlla euh, li ma ci bëgg a teg daal mooy kii kii ma wax rek poste bi daal ngeen dimbali ñu ci amuñu post am nañ ndox waaye amuñu poste case de sante rek lañ ne fanweeri at ñu ci case de santé te xamuñu loolu kan lay doon te dëkk baa ngi siw wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin fa mu newoon démb ba nekkatu fa wax dëgg yàlla loolu daal laa ci xam loo xam ne mun naa ko ci wax wasalaam. Euh, jërëjëf Fatou alors euh, dañuy jox ki nga xamante ni moom mooy euh, Ndeye Binta moom mi jóge ba ndànkaan boo moom message booy lancé lan lay doon ak sa kàddu gu mujj. waaw ah, message bi ma mujjee lancé rek mooy ci problème gouvernement parce que itam nit ba ñu dund rek dafa bëgg a waaw mais loo xam ne dañ koy yónnee balaa nga koy gis danga koy dégg ci rajo yi dégg ko ci télé yi te tur rek nga ciy am te yaakaar naa ne ñun ñëpp ay citoyen yi dëkk ci Sénégal gi loolu war nañ ñu cee jàppale ndax li bi wax rek lépp loo gis rek danga ko dégg mais fa muy jóge ba ba muy agsi dégg-dégg rek nga ciy am mais doo ci jot ma bëgg rek comme ñun ñëpp ay dund Sénégal te ñun ñëpp pay euh, taxaw pour jàppale leen nañ ñu jàppale waaw ndax gox gu bu politique jotee da ngay wax sa doléance bu passé paase na mais li ñu bëgg daal mooy ñu jàppale ñu ci suñu njaboot gi waaw jàppalewaat ñu ci affaire sante bi ndax ñun tamit ndangaan lañ ne gaa am nañu euh, euh, kii hôpital mais fi mu nekk nii balaa ngay dem foofu mun ngaa dem ñu ne la demal Diofior nga dem Diofior ñu ne demal Fatick ndax man mi am naa ci kaa da ngay jaabante Fatick ba sonn da ngay mujj obligé doo amati xaalis bu la yóbbu rendez-vous nga arrêté ko ndax ñàkk ñàkk moyen waaw te loolu yëpp yaakaar naa ne boo amee carnet de santé bi dina gën a doon mooy seer mais dina toll instant yoo xam ne carnet euh, de santé bi waxoon nañ ne pour kenn euh, pour ñetti nit lañ léegi wàññi nañ ko pour kenn nit la yaakaar naa foofu ndimbal bi mu ngi gën a wàññeeku ndax nit ku yorul nga ne ko lii pour pour ñetti nit la wala ñeenti nit la tey nga ñëw pour kenn nit lay doon boromam di ngos-ngosi léegi boo feebaree yow rek yaa ca war a faju xam nga loolu du ndimbal ñàkkum ndox mi sonn nañ ci lool nañ ñu ci gën a jàppale waaw ñàkkum ndox mi nañ ñu ci gën a jàppale ndax nit ak ndox ñoo ànd waaw bu loolu passé suñu njaboot yi itam ñu jàppale ñu ci ndax nit amul lu sa njaboot te xale yi ñoo fiy des ëllëg xale yi ñooy suñu réussite ëllëg itam kon yaa ngi ñafe di jàng ba am li nga war a am gàddu sa diplôme di ko gàddu ko noonu amoo loo liggéey amoo loo lekk wax dëgg métti na. nañ ñu gën a jàppale te ba ñuy financé ñu financé nit ñi loo xamante ne dina leen jëriñ ëllëg te bul ci teg loo xamante ne coono la koy yokk waaw loolu daal la amoon lu may lancé sant naa leen yéen ñëpp gërëm leen. jërëjëf kontaan nañ bu baax alors Fatou Bassar alors sa kàddu yi mujj ak ban message ngay lancé. ma message bi may mujjee lancé mooy affaire pétrole bi ndax suñu doom yi géej lañ yaakaar suñu doom yi géej lañ yaakaar. léegi bu ñu demee te suñu doom yi bu ñu demee te amatuñ fu ñu napp nga nappi jënd sa essence mu seer nga dem géej jàpp si benn paan est-ce que mun naa euh, naka mun loolu mun naa dundal kër loolu mën ta dundal kër ñun paañ lañ yaakaar ak yoxos léegi bu essence boobu jàppee yoxos yi du ñu dee bu ñu demee du ñu am paañ bu ñu demee du ñu am yoxos bu ñu demee uuti tuufa du ñu am ndax essence bi yàq na foofu yëpp est-ce que mun nañoo mun nañoo jox lu loo xam ne mën nañ koo téye suñu doom yi téye ci bu ñu amatul jël ñu dimbale ñu ci loolu ñu dimbale ci fu ñu mën a sukkandiku pour bu ñu mënatul a liggéey ci géej gi fu ñu mën a sukkandiku foofu daal lañ bugg ñu dimbale ñu. Ah, mbokk yi ñoo ko déggandoo Bassoul Bassar euh, Ndangaan Thilaan ak yeneen ak yeneen ba sa njër ndaa sax même jafe-jafe yi la mooy exploitation pétrole bi amul benn jeexital bu mu am si askan bi euh, li ko waral moom mooy ñoom seen bopp sax déjà amatuñ accès si géej gi maanaam lépp luñ doon dem di ko wuti maanaam da leen di të alors ñuy ñaan rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy le gouvernement ñu waat leen xel bu baax a baax a baax donc fii la ñuy yem ak yéen seen première partie jox ki nga xamante ni mooy suñu naaka naataangoo euh, Saliou mu eggali deuxième partie bi ba beneen yoon. waaw asalaamaaleykum comme ni ñu koy defee rek suñu deuxième partie bi nga xamante ni moom la ñu ñëw fii nga xamante ni mooy euh, Fimela fi nga xamante ni moom mooy yaayam fi nga xamante ni moom mooy fii ci île du Saloum bi def dañu bëggoon juste rek poser leen ay question par rapport à activités yi nga xamante ni moom la nekkee fii si île du Saloum bi gis nañ jafe-jafe yi bëri na trop trop trop trop trop donc est-ce que mun ngeen ñu wax exactement yan mooy seen jafe-jafe yi nga xam ne moo gën a euh, moo leen gën a sonal fii nga xam mooy zone bi donc xam naa ma commencé si sama droite maman. bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen jégalu te di leen ñaanal yàlla yàlla nañu yàlla boole defal jàmm defal ñu sutura. barke Seexu tiijaan ñu ngi fi fi ñuy wax yungar foofu la membre yungar yëpp foofu la ñuy daje at bu ne bés bu ne te dañ ciy jële xam-xam boo xam ne boo toogoon sa kër doo ko mën a jot dañ fi yóbbu lu baax yóbbu fi loo xam ne ñu toogoon ci suñu kër yi duñ ko mun ma yem ak foofu man la Ajiratu Gueye jam ñaaju. ok Adjaratou Gueye jam euh, ñaaju jafe-jafe ngeen am boo xamante ni mu ngi sa xol te bëggoon nga ko partager ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan. waa ñun euh, suñu jam ñaajo suñu jafe-jafe bi ñu am sax mënumaa toog di ko wax ndax jafe-jafe bu metti lañu am jafe-jafe bu rëy la am mu ma ñëwee gis nga jam ñaajo ñi leen njëkk a lakk jën ci île yu bariwul waaye jam ñaajo dañu tëj suñu fuur yi sax. amatuñu benn jën gisatuñu dara suñu doom yi amuñu liggéey géej gi la xam nga ñun fonctionnaire géej lañu géej lañu yaakaar te xam nga ne bu géej bi amee défaut rek ñun dugg nañu ci pot loolu moo tax suñu jafe-jafe bu ñu toog fii di ko wax gisatuñu jën gisatuñu ci lu ñu jàpp ak li ma njëkk a tiital nag man Adjaratou Gueye eh, dëkk ci île bi dëkk ci ndox mi mooy affaire pétrole bi nga xam ne ñëw na île de Ngandun Sangomar nga xam ne li ñu doon dundee ak suñu doom yëpp ci géej gi la doon jóge muy affaire yi tuufa yi affaire yi yoxos yi affaire yi paañ yi ak jën yi yëpp ndax xam nga ne jën yi ñu ngi doon eh, jure ci màng yi ci màng yi la jën yi doon jure te xam naa ne pétrole bi eh, xam naa xanaa ñu dimbale ñu rek joxuñu ci lu ñu jàpp ndax man de tiit naa ci tiitaay boo xam ne ndax loolu bu ngesee bay dugg ci biir uh, sangamar rek am nañu jafe-jafe bu rey affaire pétrole bii man tiital na ma man aji géey jam ñaajo ndax géej gi la ñu yaakaar te loolu ci biir géej gi la ñëw jën yi xam nga jën yaa ngi nii di commencé di raar te loolu génnagul xam nga ne bu génnee man ma gis bato bu doon daw be kii bi uh, seen essence boobu ci ci bato bi tuuru ci géej gi jën boo ci lekk rek boo ci toggoo sax doo ko mun a lekk sakatuma nag uh, affaire pétrole bi man de. tiit naa ci am ma ma xaaraat. waaw bon comme ni ko yi waxee xam naa dama ñëw si Bintu Fall rek Bintu Fall sum donc euh, yow yan jafe-jafe nga xamante ni comme ni ko aji waxee yan jafe-jafe ngeen am yéen xam ne waa sum. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp bari na mënuma koo lim yëpp mais dinaa ci wax loo xamante ne tuuti lay doon ñun xorom bi mooy suñ jafe-jafe. ndax suuf si dafa yàqu xorom bi dugg na ci biir suuf si ba ñun dañoo taam ay béykat lañu dañuy béy dañuy napp buñ demee béy luñ de maam suñu yaay suñu papa yi dañ doon béy di am valeur yoo xamante ne buñ ko indee dañ ko doon dundee ba ñawet waaye léegi ñun amatuñu loolu dañuy dañuy béy soo dugub gerte mais gerte bi sax doo ci am sax cinq saak yu mot dugub bi. boo ci dundee ñetti weer ñeenti wér nga jeexal foo yaakaar ci géej bi géej bi boo fa demee doo mun a indi sax jën jën bu doo indi jën doo indi yoxos doo indi paañ doo indi tuufa nii crevette man mi di wax crevette laay jaay ak yoxos ak paañ Dakar mais pour ma am ko pour yóbbu ko sax amatuma ko borom bato yu mag yi ñëw nañ tubaab bi jënd yëpp yóbbu. ñii ñëw mbaal yóbbu ñi nga xamante ne ay gaal yu ndaw lañ amoon di mbaal di suturul amatuñ ko ndax borom bato yi yóbbu nañ yëpp waaw maraîchage yi nga xamante ne moom lañ doon def ah mënatuñ koo def ndax suuf suñ suñ suuf yàqu na suñ néeg yi nga xamante ne sax moom lañ amoon suuf si yàq na ko xorom bi yàq na ko am nañ ay teenu xorom ñun di ko valoriser di ko jaay. mais dafay nekk ba nawet fekkaat ko foofu mooy seey amuñ fu ñu ko jaayee loolu yëpp suñ jafe la waaw ndox bi nga xamante ni moom lañuy naan dafa xorome teen lañ am amuñu robinet te nit bu nekkee ci dëkk amoo ndox boo naan ndax ngay naan ndox boo xamante ni dafa xorome wergu yaram mënta am kon mënuñoo wer te utiliser wuñ li nga xamante ne moom baax suñ loolu moom buñ ci mënoon a jàppale moom ñu jàppale ñu ci ndox amuñu ndox bu baax amuñu ndox bu baax ndoxi teen lañu naan ndox bi dafa dafa sale suuf si dafa sale suuf su sale boo ci euh, gasee teen si ndox ba day sale kon ñu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax soo wax maraîchage ngay wax koom dafay fekk nga am ndox waaye suuf su sale boo ci defee ndox bu sale kon euh, doo euh, am dara waa ñu jàppale ñu ci côté boobu loolu. du ñu am lu ñu ñu defee seen carte léegi nag boobu lañ fa taxawal bàyyi ñu ñun bu ñu bës toog mu métti ci ñun yoon parce xam nañ ñu ne xam nañ suñu tool ñu ci gox ci xam na da denc jërëjëf yow soo liggéeyee ba pare fan nga koy jaay loolu jot na ko da nga doon jaay di ko sa jël di ko sa jël ba doole am yow doole amul li kat amul doole sa doole da koy jàpp lan lay nekk foog nañ loo am na fa man kay damay ñëw rek ndox bi moom mu ngi noonu ndox am fa wax dëgg yàlla liggéey liggéeykat ay jàmbaar la ñu ngi ko xam nit ki nag balaa ngay def moom sax dëgg la jëriñoo la dafay am tax def naa ko humanitaire def ay pompe pour def fa ay bateau yoo xam ne ñu dem ñu def ak ci ndox mi am kon naka lay demee nañu ko jàppale ñu te yàlla tax may xam naa merci beaucoup donc xam naa dañuy ñëw rek dem ci waa Dionewar dégg nañ ni Dionewar nag moo gën a neex ci lii nag dégg naa Dionewar amul jafe-jafe. yéen jafe-jafe am. Dionewar a gën a am jafe-jafe. yal nañu yàlla defal jàmm defal ko mboolem ñu toog fii adaf lu ngar jigéeni Idda sant yàlla di doon sant yàlla fekk nañ ko rek nañ ko fekk ay doon day barke yàlla ñu koy wax jafe-jafe ñu ngay dimbali ndax Sàngamar ñoom ñoo ma jàkkaarloo léegi boo xëyee suba pour nga war a génn bu géej gi feesee doo génn ci beneen côté ba ngay dem foofu ngay génn waaye ci waax yi ñuy liggéey pour ñu dugg a gaal ndox pour nga dugg ko ndox kii bi fatt na ko canal ndox mi fatt ko baañ yi ñuy wax dañ daan dem sangement di paañi di dem ci géej gi law yi di paañi waaye léegi mënatuñoo am dara ndax bato yi ku ñu noon yéet yoon war nga koy duggee léegi amatuñu yéet léegi euh, pa kaset euh, yéet mu ngi jël fukki junni ak ñaar loolu boo ko jëndee moo jëm ak moom dañ ko daan jële ñetti junni loolu ci suñu liggéey la am na tam boo xam ne koo yee ci génne jigéenu jon waat te du korosé mu lebal la million ndax ak kuufa bi ak paañ waaye loolu yëpp amatul mu ñëw yokku na sàngomar yokku pétrole ba yokku si ndax li ko pétrole bi yokk ñi nga xam ne dañuy mbaal bu ñu demee duñu am jëf ñoomin bu toogee bay togg ceebu géej xam nga ne moos amul jëf lu dul kii su yi di jóge Gàmbi ñu di ko jënd di toog ndax jënd jafe-jafe bari na ci biir kii lii de suñu géej bi mu nga ca biir kër ya kër ya ah, géej gaa nga ca biir kër kër kër ya kenn amatul foo jaar te ñun géej a ñu wor ndax ci digg bi la ñu nekk géej wor ñu kon nag ñun tiit nañu ñun ñoo gën a am jafe-jafe waaw affaire xale yi nag boo gisee ñu di ko wax xëy na lii la pétrole bu ñëwee mun nañoo jëriñ suñu doom yi suñu doom yi dañ ci war a liggéey jëriñu ci jëriñ seeni ndey waaye xam nga ñu nekk ci il yi li yàlla xam doy na ndax xam nga ñoom it dafa bari kees boo ñëwee mel ni Babou koy wax ko ñaari baat mu dem mu doy loola moom dañoo gaaw a doy waaw waaye Idda Saalum ruq la de ruq la ndax ñun bu fekkee ne nawet baa ngi ñëw nii dañuy tëj suñu géej gi ki nga xam ne foofu la ñuy Idda Faaj dañ koy tëj. daal di jublu ci di tax bi ak ak ak ak ñëw waaw léegi loolu la liggéey bi itam am na tubaar fakal la dindi bi am na yëpp bari na waaye amuñu fuñ ko jaayee te dañ ci liggéey lu bari waaye lu ñu am fuñ ko jaayee Mawal a gis naa fan yii seen ponton dafa daanu. waaw bi ñu doon liggéey foofu ndax ñun ñoo dëkk bi ñoo ko cotisé woon doon ko liggéey. Ah, am na ci ñu ci dugal seen loxo nag waaye dafa jékki-jékki rek daal di rës ñu ne ci suuf si la ndax seleñ bi dafa dafa nooj moo tax mu daal di tàmbali benn wàll bi te foofu foofu lañ daan wàcc gis di wàcc ndax fële tëj na canal bi baare na géej gaa ngi yóbbu géej gaa ngi jeexal dëkk te loolu yëpp war nañ cee jublu de ñu gi war nañu cee dimbali te ñëpp war a ci jàpp ndax wax dëgg yàlla ñun ci digg géej gi la ñu nekk boo tëddee doo nelaw am na biris boo xam ne bu xasee dugg si fii day dugg si ba ci seen biir kër yi tabax yi yàqu na boo karawulee sa néeg ba la am semaine def ni maara day taali jafe-jafe bari na de waaye yal nañu ko yàlla saafara te am ñu ko mën a yorat wax dëgg yàlla ma yem ak waaw jërëjëf jërëjëf léegi dañu ñëw ci añ yi wàllu santé maanaam wàllu wér gu yaram yan jafe ngeen am dëgg dëgg dëgg nga xamante ne jam kon Adji bu ñëwaatee suñu jafe-jafe tey am nañu euh, poste santé xanaa yàlla jàppale ñu ci ay gar ndax am nañu euh, docteur bu ñuy faj am nañu euh, sage-femme amoon nañu sage-femme waaye dafa dem ñun suñu élèves yi suñu doom yi ñuy jàng bu école yi tëjee dañuy wàlliyaan yi ay Dakar di utiliser nga mun a jàppale sa ndax li ngay xam ne moom moo lay moo war sa yaay pour ci yow sa du ko am ñuy rëy ay xale yi bindu yenn saa yi ñu bind la ba pare dem jaay la wala mu def la métit xam na ne loolu bu sa amul lu mu la jàppalee doo doo loolu yëpp suñu coono la ñu bëgg ñu jàppale ñu ci courant gis nga ba euh, kii xewee ba léegi si pax amatul ci géej gi laaj ma lan moo tax gis nga mbaal yi ñuy jàppee si yi mooy indi jën yu euh, façon jën boo gis si àdduna ñu indi ko mu nekk lu tuuti xam nga ne jën boobu mënatul a mag te buñ ko indee du jëriñ dara ba si pax xewee ba léegi laaj yéen amatul ñun dañu daan fa naan ci suñu koor bi mun nañu am ñaari téeméeri kees euh, kubo di ko def formation waaye léegi dafa tëj sax bu jam ñaaj uta jam ñaajo nekkoon bi wax leen dafa tëj ama defatuñu dara gisatuñu kuy mbaal kubo gisatuñu dara ndax xam nga ne euh, sipax bi ñi muy jëriñ du ñëpp ndax ku baalul si pax doo waaye eh, ñi doon baal kobo ak ñi doon baal jën yëpp ak ñi doon baal gis ak ñi doon baal ay koom yooyu yëpp dara amatul ci géej gi ndax boo eh, baali si pax yi bu ñu wàccee façon nga jën boo gis ci àdduna rek dina wàcc ci ci ci mbaal yooyu xam nga ne loolu dañ ci war a wax waaw loolu suñu jafe-jafe bu metti la ak xaalis yi nga xam ne dañ koy lekk ci bank yi di teg eh, boo lebee junni ñu ne la bu weer bi <laughs> nga teg ci nga teg ci nga teg nga teg ci junni xam nga ne loolu du ndimbale dañ lay lebal xaalis kay def ci tuuti wala ñu defal la xaalis nga liggéey ba pare delloo doomu xaalis bi nguur gi jàppale ay Macky Sall danañu jàppale. incha allah incha allah danañu jàppale bu baax. jërëjëf maman donc bintu yoo xam naa dañuy ñëwaat ci sum rek. sum jafe-jafe santé bi lan la maanaam wàllu wér gu yaram bi. wàllu santé sum ñun am nañ ko de santé am nañ maternité mais ñun suñu problème mooy garab. garab da ngay dem ci poste de santé wala nga dem ci maternité. ñu bindal la garab nga dem ci seen pharmacie amul dara da ngay mujjee dem jëndee ji ko Foundiougne wala Kaolack wala Fatick. garab yi garab yi pharmacie sax amuñu ko te loolu jafe-jafe bu mag la yoonu sum bi baaxut baax boo xamante ne nit war naa jóge fii nii nga yore malade boo xamante ne dafa sonn nga war a dem jënd Foundiougne garab bu bu la yàlla dimbalewul dëgg balaa ngay ñëw faatu. wala doomam bu fekkee day wasin doomam def leen wayu nga def kon ci wàllu sant am nañ ci problème problème garab lañ da dem ci hôpital euh, ñu ne la temps nga war a fay nga jox la am prestamol lu ko mun a faj ndax amuñu ko bëgg nañ koo joxe wem amuñu ko kon nguur gi moo ñu mun a jàppale mm-hmm. ndax bu soxlaa ñun ñooy taxaw kon buñ soxlaa nañ ñu dimbale te yàlla tax amuñu garab loolu laa bëggoon a wax ci santé ndax ñun bu dee set def nañ ko dañuy bale dañuy raxas dañuy jël hygiène bi eau de javel yeeg di defar ba mu set mais ku feebar garab moo lay dimbale te boo ko amul day sonn ñaareel bi mooy euh, président nguur gi nañ ñu jàppale comme ni ma ko waxee woon ndax bu soxlaa ñu ñooy ñooy taxaw xeex pour am lu mu bëgg. kon bu ñu ñu soxlaa nañu xeexal nañu jàppale comme ki nga xamante ne mooy suñu président président yi Famara Ba lu muy def bindal ñu projet boo xamante ne amul apport amul dara ñun dañu koy bindal financé ñu soxlawul dërëb ci ñun di ñu jàppale te yàlla tax ñun waa suñu def Famara financé financé nañu ak FEM ñuy liggéey ak moom ñu jàppale ñu lool ndax lu ñu xam am tey ba di ko leble wala ñu koy tiitaroo moom moo tax moo ñu lebal ñuy liggéey di def ay ay kii nu mu tuddati yarum ginaar di dem ci euh, euh, jëjëmbat ay kii def euh, mangrove te xam nga ne ku am géej mu nekk tan am ndox amut mangrove jërëjëf kon Famara bu ñu jàppalee ba ñuy jëmbat ay mangrove di ko di ko def kon ñuy ñaan ku mel ni moom na ñëw jàppale ñu ko yàlla waaw loolu laa bëggoon a wax merci merci beaucoup merci beaucoup donc xam naa dañuy ñëw rek euh, terminé ci xelaan xelaan xam naa ne wax na ci sant bi léegi mais wàllu yoon xanaa amoon ngeen jafe-jafe wàllu yoon est-ce mën nañu ci wax mën nañu wax ci affaire yooyu yoon bi moom laa la waxoon loolu naan yoon bi nañ ci am jafe-jafe bu nekk parce que balaa ngay dem bëgg ngay yegg ci la wax dafa bari problème ndax ñu bari nag yoon bañ fa def ne rang-rang lañ fa def ndax yoon bi mu demee sottiwul def nañ ko xam ne sottiwul te ñun ñàkk nañ ko parce que ñun nag malade bu am doon dañ ko mën a yóbbu foofu dañ ko mën a yóbbu mbaa pasi yow balaa ngay teg ci loolu bi parce que ngay la ma ca mun a teg mooy li la waxee kakaaw bi sax si biir itteewoon na ndax bu ñu ku ñu koy benn wax bi rek la ñuy mhm. wax parce que affaire géej gi am na jafe-jafe yow boo jógee fi laan uti tuuba uti yoxos yow li ngay am ak ay am nga foo ko war a jaar am nga foo war a jaar jaay ko mais doo am foo ko koy jaay boo demul jiw pour li nga mën a dem waa Passy teew li ngay am sax toll noonu amoo loo mën a def ci géej gi muy leneen ni lay yóbbu ay gaal ak yeneen ak yooyu yëpp ci jafe-jafe yi la ko muy mango bi mangoro bi ñuy wax mangoro xam nañ jëmbat fii ci Pamara Ba baax ñu def mais na benn ko boobu mu defoon jàppale na wax dëgg yàlla baaxoon na ñu calag bi ma bëgg laa wax ni mangoro yooyu enraciné na parce que jën ci biir mangoro lay dugg yoxos ganaar gi mooy tax am doom parce boo duggee ci géej nii romb yoxos bi am na yoxos yoo xam ne boo romb da gis ndox mi di génn ci yoxos yooyu voilà mooy ko yokk suñu ndaw yooyu takk ci maam ñoo war a doon moo tax ñuy tere pour nga ñëw foofu fekk mango yi foofu yokk dañ koy ji ak yokk waaye kenn ko moo tax ku fa ñëw ci góob ñi buñ la gisee dañuy wax buñ ci amoon jëndal sax dañuy wax da ngay xool jën yooyu nag jur doom yi ñuy jur ci biir mango yi lëndëm yooyu foofu lañ koy jur jën yooyu suuf soosu la ñuy benn picca nangoro bu amul jën bu fa ne ñu koy tali kay jën bu fa kon ñu ngi sant Fane Faye di leen gërëm di sant di leen gërëm suñuy mbokk ngeen suñuy doom ngeen di ñëw di ñu laaj ci nit ñi di leen ko wax dama bu rek di leen ñaanal yàlla yàlla yóbbu kanam seen liggéey ko xam naa la ñu tàggoo rek euh, aji ñaanal leen yàlla rek yàlla defal leen suba. yóbbu leen ci kaw a kaw a kaw bi ñëpp ngeen jàpp ci ñu war a wax ñun ñuy toog fii yëpp benn wax bi rek lañ wax la ñu ba gandul waar ba li nga xam ne jigéen boobu toog boobu tubaab la fonctionnaire la ñu di ko wax euh, DCMO seen dëkk boobu ay fonctionnaire ñoo ko def maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yàlla defal ñu defal ñu taw feex fii ñu toog rek yal nañ ci toog déwén duñ ci sàkku rek yal na noonu jàmm ci barke Seexu Tijaan di ñaanal euh, borom kër gi di Famara Baas yàlla yóbbu ko ci kawa a kaw a kaw a mu ngi ko yóbbu ci kaw waaye yal na ko gën a yóbbu ci kaw gën koo jàppale te mu tudd nekk mag bu am barke mag bu ñu naw mag bu am diina lislaam yal nañu yàlla defal ko la defal ñu jàmm Binta yow sa dernier ndox lañ bëgg ndox di ñaan président de la république mu jàppale ñu waa Sum département de Foundiougne arrondissement Djilor mu jàppale ñu commune Sum amuñu ndox teen lañ am te teen yi dañoo sale dañoo xorome nañ ñu jàppale ndox lañ bëgg mu jàppale ñu xorom bi ñu am di ko euh, kii teeni xorom yi ñu jàppale ñu mun ñu ko jaay bëgg nañ ko lool di jàpp ci environnement bi ak euh, santé bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp gërëm borom kër gi nga xam ne mooy suñu euh, président Famara Bass di ko ñaanal gudd fan ak wér nee na ñaay kenn di ko ñaanal rey dañ koy ñaanal gudd fan ak wér jërëjëf jërëjëf yéen ñi nga xamante ne ñu ne ñoo jël ñu yàlla yóbbuwaat ci jàmm yokku liggéey bi ak raat jërëjëf waaw Ndeye Senghor John mhm. Waar lan xam ne dama xaw a fàtte ñu mhm. jigéen ñi dem géej xamuñu gaal ndax boo demee jël sa ñaari loxo yi soobu ca géej ga amoo gaal gis nga li fi xewoon bétat bi ñaar fukki nit a ca deewoon ay jigéen benn góor a àndoon ak ñoom léegi boo demee uti yoxos uti paañ indi ko boo amee benn saako nga togg ko am benn kilo fay ko gaal ga fay ko ñaar téeméer gaal ga looy defee ah. léegi nag ñoom bu ñu amoon suñu bo suñu gaalu bopp bu ñu xëyee xëy ca bu ñu gontoo gontu ca ndax dañuy jënd ay saase loolu suñu problème bu mag la gaal ak machine bëgg nañ ko wax dëgg yàlla bu gën a mais jigéen góor ñi dañuy lée seen gaal yi de du la dugal te amul boo amee paañ fay kon nag ñun jigéen ñi war nañoo dimbale ci ay gaal gaal yoo xam ne bu nappi yóbbu ko bu ñuy ñëw ndax ni góor ñuy nappe noonu la ñuy nappe loolu daal bëgg naa ngeen dimbale ñu ci yegg ca président république ba Marème Faye Sall mi nga xam ne moo yor jigéen ñi ngeen na ko waa Idda Saalum dafa làqu bi bee màkk yi bugg nañ ci mënuñ cee jot ñu ngi nii toog ci biir il yi ci biir duq yi ñu dem duñu dëkk ndax ñun ku dem fekk ñu fi ku bàyyi ñu fekk ñu fi tam te waa Ida saalu wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu biyee màkk yi bugg nañ ci gaal yi itam dëkk bu ne bugg na ñaari gaal ñaari gaal yoo xam ne moom ngay nappe bu jigéen ñi amee gaal boo xëyee tekki sa gaal da ngay jënd isaase waaye boo amee fay boo amulee doo fekk ñu ngi la koy wax loolu yow dañ lay yónni yow mi ñu yónni nag boo ko ko yal na leen yàlla defal jàmm fii ñu toog ren yal nañ fi toog nega di déwén yal na ko yàlla def ci barke Alaaji Maalik ci barke sëñ Babacar Si ci barke borom kër gi di gërëm Famba la Baas di ko sant yokku ca kanam rek ngeen tam ngeen jàppale ñu waa Inde Saloum ngeen jàppale leen jigéen ñi man maay Ndeye Senghor ah. présidente union locale bu Dionewar département bu Foundiougne arrondissement Nioro waaw jërëjëf jërëjëf gërëm di leen sant def donc ñu ngi leen di.